ci sous-régional kon nag yow xam-xam ci Jawbe moo tax nga ñëw ba Jawbe nga taxaw ne da ngay saafara ci ak waa Jawbe ñu ngi la ciy gërëm di la sant mu mel ni yow développement soxal na la commencé bu avancé soxal na la bay bu avancé soxal na la ndax Jawbe ñetti pël yooyu moo fi nekk wàllu commerce wàllu agriculture ak wàllu waaw soxna Modou Dieng mu sànni ay kàddu bàyyi monsieur le di commencé ñu jël parole lu may ñi ñu jël suñ secrétaire bi nga xam ne que nii moo nekk coordinateur jigéen ñi mu jël sànni ci ay kàddu bu paree ñu door a jox président ndax yéen ñi dafa xaw a jàpp dañuy jéggalante na te weeru koor lañ nekk kenn ku nekk heure bii nii am na loo xam ne nii yaa so ya sonn yaa ngi koy mais président jaral nañu ko ñu ànd ci mu lante ko ngir asalaamaaleykum président ñu ngi lay di la ziare ñu lay dalal jàmm di la masawu coono yal na may ndam barke Serigne Babacar ñu fekk ko tal ko ñun jigéeni Diawbe nag ñi ngi nii sa ginnaaw nañ taayi nañ mag ak ndaw jigéen liñ fi manqué bari na transport bi sottul liñ ci teg dafa oto yi di ñëw moo doon doxal Diawbe te oto yi ñëwatuñ normal liñ fi bi doxatul Assalamualaikum warahmatullahi presse c'est dañ koy nangu assuré ko incha allah rabi coono bi du am incha allah rabi yal nañ am ndam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa Diawbe ak waa Kunkande ak waa Anambe fii nga xamante ni bassin bi fi la nekk pour bay ceeb bi ñu ngi ànd ak suñu ndap bi umu moom moo nekk suñu président foofu noonu démb rek lañ mujjee dem foofu noonu sapp foofu silil nga xamee ko noonu bu baax a baax vraiment xam naa temps bi dafa xaw a xat loolu moo tax mais sinon maire bi moom tamit mu ngi doon ñëw mais dafa am tuuti empêchement si moo tax maire mais mu ngi lay nuyu di la dalal jàmm incha allah rabi contact yi dina gën am incha allah rabi yal na la yàlla defal jàmm yàlla defal ñu ndam. amiin waaw merci beaucoup jërëjëf. dégguñu dara waay. tijjee son. waaw tijjee son. waaw tàcculee nag tàcculee balaa mu wax. tàcculee waay. Merci. Assalamu alaikum wa Diaobé. Assalamu alaikum wa Diaobé. Xam duma du comme ci tali bi lañ taxaw damay bañ bloquer circulation bi di wax rek ni amna naa mbégte ñëw fii ci Diaobé. Bandiraɓe na be mi salmini on onon fof mbeɗe welti e arde do e Diaobé hande. pour tu mon pour yiide mon pour de mon Do Diaobé ko Wurongo, ngo ɓurɗo importance e sénégal ɗum kam wa sénégal fof na nganndi ɗum euh, dakar Gondo Thiès Gondo saint louis ko ngannduɗa somo yiino ɗum o wiyeeto ko dem ba jawbe pour amlo donc jawbe c'est important pour notre économie jawbe c'est important pour le développement du sénégal malheureusement ñi nga xamné ño fi nek fulla ak gëdd bi nga xam ne war nañ ko jox jawbe joxuñu ko ko marché hebdomadaire bi xam nañ nu mu demee lépp lépp moo fi ñëw ci sous-région bi muy Guinée muy Mali muy Guinée-Bissau muy Gambie même fii ci Sénégal lépp loo xam ne dañ koy dañ koy fekk fii dañ koy bay ci Sénégal wala ci yeneen dëkk yi boo ñëwee jawbe di nga ko fi fekk ñun nag sunu programme sunu programme ci jawbe moy marché jawbe lañ bëgg nekk def mu nekk le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest lepp lo xamni lepp lo xamni infrastructure le bo xam war nañ ko créer ba nga xam ñi ñëw ci marché bi dinañu mëna a ñëw liggéey fi liggéey bu muccu ay am fi li nga xam mom lañu soxla marché bobu dinañu ko def wax naa ca Dakar ba ma marché Dior nous suis un programme la modernisation des marchés du Sénégal Lolu ñu bëgg ci commencer fi ci parce que c'est important pour nos économies, mais surtout carrefour la na carrefour bo xamné buñ ko pour buñ ko andilé lépp li nga la soxla mën Afrique de l'Ouest té que nous mais Nous pour def ko pour transport soxna ci waxnako na transport bi jafena ci sunu projet bi nga xamné dañuy jël chemin de fer bi nga xamné moy joggé euh Tambacounda ñëw Kédougou jëm chemin de fer bobu chemin de fer bobu dina jaar fi ci Diaobé pour que nit ñi mën am bu baaxa baax moyen de transport yu muccu ay donc japp leen ni bu ñu yàlla dénkee réew mi dem ak dikk fi ci Diaoubé dina yomb chemin de fer train dinañ fi jaar fi ci Diaoubé jëm Sédhiou jëm Ziguinchor continuer jëm Kaolack donc di wax ni dinañu taxaw Diaoubé dinañu taxaw waa Diaoubé wax na ko sànq Anambé sorewu fi man ma bëgg ne bu ma nekkee président wu Sénégal kenn dootul dem ci biti di jëndi ceeb ceeb fii la ñu koy béyee ci Sénégal fii ci Anambey ñu créer ay emploi moderniser sunu agriculture xale yi nekk fii bëgg a dem béy ceeb wala ñu béy leneen ñu andi leen financement jox leen ay suuf jox leen mécanisation jox leen lépp loo xam ne soxla nañ ko pour dem béy ceeb wala ñu béy leneen dans des conditions optimales loolu la ñu bëgg jàppale surtout jigéen ñi parce que ku wax marché Diaoubé wax jigéen jigéen ñi ñoo yore marché bi ñu war leen jàppale bu baax a baax a baax ba nga xam ni seen activité bi nga xam ne ci la ñu nekk ñu mën a mën a taxaw jàppale leen ci andil leen financement wax na sànq fële ca Tambacounda banque des femmes bi nga xam ne incha allah dinaa ko créer pour financer jigéen ñi seen ay te banque boobu bëgg naa mu teew fii ci Diaobé parce que c'est important ngeen xamné da ngeen di joggé seen seen place dox dugg ci banque bi ñu wutal leen ay financement jox leen ko ngeen dem outil ay bagage ñëw jaay ko donc Diaobé ci équité territoriale bi nga xamné mom lañu bëgg ci pôle de développement urbain yi nga xamné mom lañu fasiyéné tabax ci réew mi Diaobé ci la bokk ci projet bobu la bokk modernisation de la ville de Diaobé euh, créer une économie locale forte et dynamique mais surtout créer une unité de transformation Une petite et moyenne industrie yo xamné nit ñi dinañu transformer produits yi nga xamné day ñëw fi ci marché bi té buñ ko bayé mu matière première bi ñëw ci marché utiliser ci usines yooyu transformer ko waxna feulé créer

dinañu ko taxaw dina tabax marché bu muccu ay fi ci jawbe bo xamni bo xamni dina permettre commerçant yi kat yi ñi nga xamne dañuy dem ak ñew am ay place yu muccu ay créer ci bir marché bobu ay chambre de conservation parce que am lo produit yo xamne bu ñewé il faut que ñu mën ko conserver ay magasin de stockage yo xamne bu produit yoy ñewé dinañ ko mëna stocker dans de très bonnes conditions donc dal lolu mom lañu yéné mom lañu la fas yéene taxawal nous ñu bëgg ñëpp le 24 mars inshallah dimanche prochain ñëpp génn voter Aliou Momodou Dia xam ngeen bu baax xam ngeen bu baax bulletin bi nu mu mel moy bulletin bu vert bi ak ñaari ñaari ak waaju rafet ji nekk ci ci bulletin bi dàq ci candidat yi donc ma bëgg mu ngi nii xam nga ne waajee ci dàq ci candidat donc ma bëgg ma bëgg waa jawbe su ngeen bëggee su ngeen bëggee ku taxawu seen ay problème su ngeen bëggee ku jublu ci seen ay jafe-jafe su ngeen bëggee koo xam ne am na compétence ci boppu réew mi su ngeen bëggee koo xam ne Amna na xam-xamu yore réew ku ngeen bëggee amna xam ni am xam-xamu régler ay problèmes notamment andi développement andi émergence wax ni man ñëwuma pour tànd ko def naa ko ci adu nabi, ci Afrique ak ci àdduna bi donc su ma ñëwee Sénégal bëgg a jubbanti bëgg a defar mu baax ma bëgg ànd ak yéen waa Sénégal yéen waa Diaobé ñu Sénégal mi nekk ci ñu andi dëgg andi bàyyi caaxaan bàyyi jël alalu réew mi di ko foyee bàyyi jël alalu réew mi ay minorité ay minorité aakimoo alalu réew mi askan wi toog amuñu dara dund gi cher amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñu liggéey jigéen ñi jàppale leen xale yi jàppale wuñ leen man bu ma nekkee ci boppu réew mi li ma yitteel mooy askanu Sénégal li ma yitteel mooy askanu Diaobé lu askan wi jublu incha allah ci loolu la ñu bëgg taxaw ba saafara ko bëgguñu ci dara lu dul na Sénégal baax na Sénégal jàpp xale yi nañu am liggéey jigéen ñi nañ leen jàppale nañu am ndox mu ñu naan ku feebar na nga faju ku bëgg a tukki am transport yu baax yow dem tukki ñu nekk créer ay yoon yu nit ñi jaar ak yeneen ak yeneen yoo xam ne askan wi soxla na ko loolu moo tax sunu programme ñu tuddee ko nit ak naataange parce que bu fekkee ne développement amul impact ci nit ki développement boobu amul njariñ donc ñun nit la ñu jiital taxaw ci problème nit taxaw ci delloowaat jikko yi taxaw ci andiwaat valeur parce que réew mi dañoo am cosaan dañoo am tradition sunu cosaan ak sunu ada sunu culture waruñu ko caaxaane dañ ko war a fonk te man gëm ni sunu cosaan cosaan bu riche la sunu cosaan cosaan bu am doole la ñu am ay mat ñu baax ñu dëkk fii ci réew mi di ay borom xam-xam ñu bàyyi fi seen xam-xam bàyyi fi li ñu bind dem di jàngal sunuy doom leneen ñu bëgg fii bu ñu ko jëlee njàng mi ñu taxawaat ko jël li nga xam ne moom la sunu mag ñu baax ñu bind maam Cheikh Seydi Hadj Malick sunu maam borom Touba maam Limaamu ak ñeneen ak ñeneen li ñu bind ci xam-xam ñu jàngal ko sunuy doom ñu xam ñoom ñooy kan loolu moo jaadu wante mënuñu jël sunu bopp renier sunu identité nekk ci leneen loo xam ne du ñun donc loolu moo mooy taxawaay bi nga xam ne moom lañ bëgg ci réew mi ñuy invité ñëpp di leen wax ngeen voteel le candidat Aliou Mamadou Dia ñu jël réew mi defar ko waa Sénégal nekk ci jàmm ñëpp nekk ci naataange su ko defee jàmm ne ñooy euh, fii ci jawbe fii ci jawbe inca allah ñu def fi développement bandiraaɓe ko ɗum tan njinnoo mi heen haalde ah, mi yetti on mi salmini on komin njiɗi ko ɓamtaare sénégal komin njiɗi ko walluɗe sénégal naaɓe komin njiɗi ko walluɗe rewɓe sénégal komin njiɗi ko walluɗe sukaaɓe sénégal komin njiɗi ko fawde leydi ndi e goonga komin njiɗi ko leydi ndi moni fof Gondo sénégal najo mbawa nannude de makko enen leydi ndi fewnirte amin cohli pour sénégal moƴƴa amin cohli pour sénégal fewne ko ɗum addi min ɗo so min gari e hoore leydi ndi jawɓe marché o mamin pewnuɗo marché mo ganduɗa ko marché mawɗo marché kesso e infrastructure mi haali chambre de conservation et de stockage mo ganduɗa mawade waɗe marché o mami Adudo chemin de fer c'est parce qu'on on a l'intention amin anni de chemin de fer min gadda tamba kunda, min nawa ɗum keydugu min ndewa ɗo e min jaha kolda min jaha seju, chemin de fer o yaha ha casamance Dum non, ko min le développement de la région sud de la région de kolda région de tamba et région de ziguinchor Nadani. Eh, no dañi priorité e programme amen bandiraɓe diawɓe naaɓe mi salmini on mi yetti on on jarama